caravane Sénégal Connect mu ngi wéy di doxal ci région Sénégal yi ginnaaw ba ñu tàmbalee liggéey gi samdi gi dal di doxantu ci gox yu bëri diggante Diass mbuur ba Fatick dimanche gi nag waa Sine Saalum ñoo ayee ci ñaareelu bésub caravane nationale gile ñu jagleel ko wàllum numérique di xarale yu bees yi. sama ñëw fii tey ci Kaolack euh, di profité ci semaine du numérique bii di waaj ñëw. ñuy wër euh, Sénégal bi yëpp di wan askan bi surtout ndaw yi leen xamal ne opportunité avantage yi nga xamante ne euh, numérique bi mun na leen ko indil tey jii domaine la boo xamante ne xale yu bëri amul xëy yu amul liggéey mun nañ ci góorgóorlu jàng ci formé wu ci parce que avenir bi foofu la ginnaaw bi ñu fanaane nga xam ministre bi yor walum économie numérique ak télécommunication yi mo fa may ab concert bu mag jagleel ko ndaw ñi ci teewaayu ay artistes yu si mel Sidi Diop wala ka Blindé ministre bi di Moussa Bokor Cham dal dina xey ci dimanche gi wutali kaolak Hey!

wàcc sa oto xam ñi ni lan lañ wax ñu koy def président Macky Sall lii la bëgg wàcc sur le terrain di xool ñun lan mooy seen problème ñun waxtaan ñoom di leen déglu Khadim Cissé gaynde président Macky Sall kontaan ci yéen. waaw gaynde sonn sonn. Bak işte. le président bu ngeen def loolu. monsieur le ministre. président Macky Sall yow la gëm yow la doy la depuis. étape bu ñëk bi nak caravane gi daldi yegg ci université bu Sine Saloum ñu duppé ko université El Hadj Ibrahima Niass fofé nak recteur bi de professeur Ndeye Koumba Touré Kane dal di tertu waa délégation bi lata ñuy gëna a yaatal jëmale ko ci liggéey bi ñuy amal fofé ci walum formation rawatina ci façon yu ñuy lëkkalee xaralé yu yees yi ak métier yu jëm ci walum mbéy mi sam gi wala nap gi. tey xarala yu bees yi may nañu loo xamante ne mën nañ ci euh, bay mbéy bu am solo bo xam bu gëna rentable bo boo dañ ci gëna gis béykat dinañ ci gën gis euh, bopam bu mi euh, bay ba bu mu koy jaay lépp circuit bi yëpp xarala yu bees dina ko dimbale ba mu mën ko ba mu mën ko encadré moo tax nag loolu tamit gis naa fi ay jeunes yoo xamante ne fii ëllëg ñoom ñooy yor euh, domaine mbay bi te xale yoo xamante ne am nañ xam-xam am am nañ jumtukaay yëpp bu ñuy génn fii nañ am jumtukaay yëpp la ñuy yor pour mën a dimbale euh, suñu askanu euh, béykat yi. faire l'esquisse de ce que l'université est en train de faire dans la vocation professionnelle, c'est que c'est une université à vocation professionnalisante. C'est la première université thématique à vocation agricole dans le pays qui forme à l'agriculture et aux métiers connexes. loolee yok li tax jëwriñ biñu denk lepp luy walum wàllum xarale yu yess yi japp ni faw rek université yi daal di gën a dugal seen loxo ci semaine biñu duppé walu numérique bi té wara am le 16 mai ca Ndakaaru. semaine du numérique bu ñuy def euh, à Dakar le 16 mai euh, au Grand Théâtre bëgg nañ aussi université yi aussi yep bokk ci parce que occasion la pour université ñoom tam ñu woné li ñuy jàngalé xalé yi woné aussi occasion la aussi pour ñu rencontrer de grandes entreprises yi nga xamantene ci àdduna yep lañ nekk am nañ ay xaralé yu am yu am solo yo xamantene ne euh, université aussi war nañ mëna a lëkk lëkkal ñom pour ñu xol naka lañu mëna effectivement gëna mëna jëriñ suñu suñu ndaw yi. ginnaw bi ñu amalee inauguration living lab bi de ab salle de laboration bu bees ñu fay.

il faut que ñu am ñu xarale bees yi xale yi jàng dugg ci formation boobu jàng ko am ci xam-xam bu wér boo xamante ne dina leen dimbale ëllëg ñu mën a euh, liggéey ci sans dans sans aucune difficulté. ginnaaw Kaolack karawaan wi jël yoonu Kolda ngir fas yéene amal fa ay activités ci ñetteelu bés bi. la final ci bopp Toma man loolu doy na ñun daal Macky rek dégg nga Macky dong loolu daal laa bëgg dégg nga waaw loolu daal laa bëgg waaw loolu daal laa bëgg ñun daal Macky rek Macky dong amul keneen ku dul Macky waaw ñun daal lim liggéey ci ci réew mi man dama ko gis merci merci Beyler boy içine. Boy içine. Boy içine. Boy içine. Boy içine. Boy içine. Boy içine. Boy içine. Boy içine. Boy içine.

Sonko yaay jàmbar son excellence yaay jàmbar président Macky Sall ak ministre président li mu wax loolu nga def wàcc sa oto di waxtaan ak nit ñi wàcc sa oto di déglu nit ñi wàcc sa oto xam ñi ni lan lañ wax ñu koy def président Macky Sall lii la bëgg wàcc sur le terrain di xool ñun la mooy seen problème ngeen waxtaan ñoom di leen déglu Xaadim Cissé gaynde président Macky Sall kontaan ci yéen

li président bëgg yëpp def nga ko. monsieur le ministre. barki la yàlla defal cëpp. président Macky Sall la gëm la doy loo depuis dégg nga amoon yow. lekkuloo naanuloo. kii MBT. barki Serigne Saliou Mbacké. jàmbaar son excellence. arrière jëm ci kanam. rouler pani presa ini musa Amin. les promesses fois. amiin waay amiin amiin moo fi baax. amiin li mu bëgg si yàlla ko yàlla jàppal troisième mandat bi. amiin yàlla yàlla tey. amiin mais yàlla suba. amiin mais yàlla ginnaaw suba.